tàngal bégee indi na lu bees tàkk muy tàngal bégee menthe fraîche fas yéene ànd ak ci weeru koor gi waaw waaw cafka menthe bu neex te sell ñu defaree ko ci anam yu mucc ayib tàngal bégee menthe fraîche rek kenn du ko jaawaatle te ku nekk gis na ci boppam dina dem ci bisaab dem ci ataaya ak was wala mu doon tàngal bi ngeen taamu ngir am une haleine ak seen tàngal bégee une fraîcheur unique weeru kooru ren jii kenn duma gën a gore xam naa ni dinaa def li gën ngir teral samay nawle ak pënchi rek kenn sol solnatul nañu yàlla dolli yiw dolli ñu yërmande dolli ñu baax ñu gën a laabeer gën a yaatu yokku teraanga yi yokku jàmm ngir weeru koor ku xéewale ren jii Punch moo ànd ak yéen ngir seddal seen weeru koor teraanga baax. jaay dolli ma fu mu jëm ak indi na mbuusub caakiri de jóg leen jóg leen jóg leen ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca. dikkati nañoo dikkati nañu. ñoo ngi nii. dolli ma mi ci potu caakiri bi. dafa woon ne. muy mosali. ak ñamali saa yu ñëwee neex mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex dolli ma dolli ma caagri dafa ba neex ma dolli ma caagri dafa ma fu mu jëmate ak ñun andi na potu de jóg leen ay ca ay ca ay ca dolli ma caagri dafa over neex yande xam nga bu ma nee yande ne seen sama xel day dem ci yande koddu seen mooy la girotte de Senghor borom woy bu rëy ba mu ne woon yante na teno juufa ñoxo bàyyoo teen gi moo teen jibi juuf teen gi moo teno juufa ñoxo bàyyoo yaa doon na mbaq ah Senghor ñàq na ah dinaa ci kooku <laughs> culture séeréer koy ba tey. dëgg la culture séeréer koy jooy ba tey. waaye tur yi daje rek. waaw waaw du sama turandoo. déedéet du sama ah! yi daje rek. waaye séeréer si benn la. waaw benn la waaw benn la sama maam la séeréer Saalum séeréer ndut séeréer noonu. <laughs> dëgg neex ñu bokk ndey waaw jeex na man nag tax ma soxla la. kilifa ma yebal ci yow. waaw ndax daal dama tollu diggante boo xam ne soxla lool waxtaan ak kilifa mm-hmm. am lu ma soxla woon muy cinq cent mille mu ne ma daal boo jegee yande mm-hmm. wax na ma nag condition yi am na lu ma jot wax mën nga ma cee dimbali man ñeme naa la. parce mhm. que démb coow li xam naa ne dañ laa tooñ te gis naa na nga taxawee loolu daal pour bañ laa yàggal xam naa da ngay génn. Mhm. man woon nag feebar moom ak problème yam boo ko waxul du faju waaw. ah tontu Alaaji man de xam nga ne ci kër gi nga nekk te gis nga ni may doxalee ci kër gi te yow boobu ba léegi yaa ngi sama wet boobu ba léegi wax dëgg yàlla mën nga àndal te gis naa loolu ci ci yow la. waaw nga baax lool kon boo soxlaa ci man dara war naa cee mën a taxaw. alhamdulilah waaye kilifa googu mbaa wax na la samay condition yëpp. am na yu ma wax nag wax na ma pour pourcentage bi nga ci teg ak yooyu. yooyu <laughs> normal la. Uh-huh. baax na uh-huh. parce que xam nga banque. ay intérêt moo tax muy dund. kon yow intérêt yooyu nga ciy teg uh-huh. nangu naa. waaw mais dama la koy bamtuwaatal rek ndax xam nga ne man samay mbir lépp day leer. waa man samay mbir moom doxuma ci dara caaxaan xam nga xaalis dafa sew fu mu xajul rek lay dugg la lu ne jur na lu léegi bi ma bamtuwaatal la ko rek maanaam man sent mille bu nekk dama ciy teg dix mille nangu naa dama ciy teg dix wax na ma loolu wax na la loolu wax na la itam ne la mm. samay këyit dama lay jox nga signé te du àgg ak man foofu nag. waaw kay léegi bàyyi ma leeral la loolu maanaam man bu ma lay aar xaalis. mais xam contrat euh, verbal nii mu ëpp doole sax ay signé. tonton Alaaji defuma ci loolu. Ah. man sama xaalis. Ah. nii laa def doog ko am. su ma koy leble. damay bind samay kayit muy leer nañ nga signé ma signé. sama bopp ma la gënal du bañ. waaw kay jeex na tàkk léegi. damay def contre plainte contre x bu nga xamante ni si danga koy signé. di nga signé ah, yeneen papier man koor ma de xool man damaa dégg nga ne. déedéet déedéet sàllaaw li ma wax loolu la. danga nga ah, en waa waaw damay def plainte contre X. nga jox ma sa carte d'identité. Hmm. da nga may jox sa ba jox ma sa extrait de naissance. lépp sa turu yaay ak sa turu papa. waaw waaye yëpp da ma koy jox. plainte boobu pour lan la noonu. plainte bi su ma ko bindee. yow da ngay signé. waaw bis bu ma la joxee sama maanaam su ma la joxee 500000 yi. man 500000 ci 2 mois maximum. waaw minimum 1 mois da may delloo sama xaalis. te bu ñu waxee ne la 15 le quinze la 15 ci guddi à minuit soo ma joxul sama xaalis plainte boobu nga signé woon moom laay dem déposer procureur wooye élément wam ñu def décharge di direct sa biir kër. après. waaw boo ma fayul nangu siin boo ma fayul rek ma yóbbu la bërëb ba xam nga moom <laughs> foofu neexalul kenn te. ah yow dégg naa ne nag euh, di may tuuti ma am ku ma gis. waxtaan seeg moom après ma revenir la. xanaa soxla bi jàmpul. ankay ankay waaye xam nga nag ay kasoog ay plainte yooyu moom ci 500000 tey tëj la nii ngay corté ay ay ay fële ay ah. prison ak yooyu dafa gars dañ lay fàtte. Ah, man de sama xaalis wax dëgg dañ lay fàtte dañ lay fàtte. noonu laa koy joxe waaw waaw waaw man <laughs> daal bàyyi ma jàpp ko si nii wii nii noo bi rek. Ah, kon na xam naa dinaa la revenir rek quoi. dégg nga waaw maa ngi lay déglu. jërëjëf waaw baax mag yu manqué perte foog ne man sama xaalis bi may liggéey da ngeen koy lekk ci noonu yàlla tere signé rek taxi bi kañ lay ñëw. allo Elimane euh, Mbaye waaw waaw waaw waaw maa ngi sama sama sama lijjanti yi ba tey quoi léegi doxal ma ko Mbaye rek yow jeex na Elimane <laughs> kontaan naa si yow jërëjëf. man Hortense war naa koo woo de xaaral bi de. waa gis nga <laughs> ma. ma amoo jot. dëkk bi am jot yoru ko. baaxul. ngay joob rek di dugg di génn. nag nag am na bëri ñu mën a fen de. kan dëkk bi. Mhm. mais dëkk bi daa yàqu. Mhm, dëkk bi dafa am ñoo xamante ni bala ñuy am lu leen neex foog ñuy mentir di fen te fen baaxul fen baaxul yàlla da lay kësëb da duma. fen moom ku koy def jullit du fen mm-hmm. am ñoo xam ne këf këf jàmbur yeeg di fen di dóor di nangu waaw loolu wax yooyu daal lañ nekkee rek yooyu yëpp ay ay safara ngay dem direct yooyu te te weeru koor gi weeru koor gi soo si nekkee rek nga war a sellal war a jubal bàyyi fen bàyyi dóor am na sax nit loo xam ne dañ ciy ngorowoo takk takk suuf ak yëpp la ñuy def ñu lu ne lu yooyu moom yàlla sib na ba pare di woor man daal man daal man daal sama waa ji man xam naa ni dëkk bi jaxasoo na de dëkk bi ay eh, wax ji xanaa daa am objectif ci lan tax ngay eh, dëkk bi laay wax nag hmm. so waaw da ngaa dégg dara wala lan lu may dégg gis nga yow sawaay yow juboo ku dëng nga lan nga dégg juboo waaw lan nga dégg yow tamit lan la lu xew xam nga lu ma dégg yow nga ni dangay yóbbu ashish Amérique moo du korite waaw mode karité bi moom man maa ko ko yor waaw waaw Daga Ndour depuis ko joxoon ak Faamara. Daga Ndour mooy rakk nekk TFM. waaw maa ko joxoon mais. wóor na waaw wóor na na. wóor na wóor na moom laa doon woote noonu sax. laa joxoon cinq cent mille. non joxaguma cinq cent waaw mais cinq cent mille nga ko fayeeku. ah mise bi deux millions la moo defal ko ko cinq cent mille kay. loolu dara wóor na wóor na. ñaata laa ciy lekk. non yow doo ci lekk dara. ah du ma ci lekk. loo ci lekk. 500000 u jàmbur. su ma ko jëlee télé ba laa koy jox. waaw ah. waa télé ba lu ñëwoon. yow xam nga lu yow noonu fu ñu jëm. lii man rekk ko yëg. li ma yëg man kese ko yëg. waaye li ngay yëg lan la. dégg loolu ma wax la tëj sa làmmiñ noppi. imbécile yow nga yow yow yow toj dëkk bi def lu nu di di di di wax. yow loo liggéeyati danga may fay. waaw lan laa def yow léegi fonctionnaire laa sa damaa am bulletin de salaire dootuma fay néeg bi na ñaar dee ma verser assis loolu euh, sama waa ji baaba njéeme loolu muy joxe baaba njéeme li muy joxe da nga koy xaaj ci digg bi cinq cent mille yi jox ma deux cent cinquante mille yi jël deux cent cinquante. xam nan la bëggoo nag maa menacé taxaw ma lan menace bi fan la wundu lii xaalisu jàmbur la su ma ko jëlee dama koy joxe waa tele ba TFM ñoo ko moom moo mais booy da ngaa takk xale bi ci suuf non toogal fa fe nga toogal booy bii da ko takk wala takkoo ko. ko takkoo ko dama ko takk dama ko takk. deux cinquante mille deux cent cinquante mille nga may jox. mais xaalis bi jëlal ko ma ne jëlal deux cent cinquante mille jox ma deux cent cinquante mille laa wax. néeg bi dootuma ko fay. dégg li ma wax. day liggéey di ma verser fonctionnaire laa léegi damay tëdd di nelaw. kaaja geeg wër gi bàyyi naa ko. da nga bëgg a toog muy dox. eh dama ne yàlla day wërsëgale nit ñu ne toog muy dox dégg li ma la wax de. salaamaaleykum. yàlla mbay. Papa Sané na nga def. maa ngi fi naka koor gi. Guèye. Hmm. mi baa ngi nii lan lan maa ngi nii taxoo waaw mais bàyyi mu sedd sa fiche la boobu ba léegi koy fubal ci suuf fubalu muuma kenn ma rek boo yow boo yow yëg nga ko xaraam nga nga ma tegal yëpp xam naa ko mais yow tamit ñu ngi ci woor est-ce que nag xam tamit xam gi ma ko xam nii nar laa bàyyi ci biir yàlla suñu borom duma duma waale bàyyi ma ah, wax ko li ma condition bi bu ko wax soo ko waxee ta dëkk bi toj non man tiyaaba bee ma gënal xaalis ah non non non non non jamono ji toll tiyaaba wóorul xaalis moo gën tiyaaba ah xaalis laay wër man. non baa mi def ah, waaw mais yow tamit nag dimbali ma. kon jëlal deux cent mille jox ma trois cent mille.